bikum Cheikh Yérim Seck taskatu xibaar fañ koo teg loxo ma nga ca loxoy takka der ya gardaawi allah bés bi yéen a kaay moo ñu ko xamal l'observateur na ko faa lay wax lu tax ñu jàpp ko ak luñ koy toppee yow seetal fa weddi chiffre li mu xaalis yi Ousmane Sonko waxoon ci ay luubal yi fi Macky Sall ak nguroom gi defoon Vox Populi na ko yow faa la ci yokkal liñ koy toppee dëgg-dëgg mooy fa yàq der fa wax lu du dëgg joxe xibaar yu wérut Ousmane Sonko nag nag porté wut ko plainte de déedéet yoon moo def liggéeyam député bu ñuy wax Amadou Ba bu Pastef moo ko wax la mu ñu wax moom l'observateur mooy jege Diop bokkoon ci nguur ak Macky gi moom it démb fañ koy xoolu déglu ko bàyyiwaat ko mu ñibbi këram altine tamit fañ koy waat lépp ngir wéyal enquête bi waa APR yi nag fa ñoo mer ba fut ba tax Abdou Mbow kenn ci ñoom fa wax ne projet xuppaate moom la nguur ak Sonko gi di doxal fi mu toll nii turbine yéen a kaay na leen jeexagut sax de Bougane Gueye moom tey jii ci la ko takk dari woolu ngir déglu ko te lépp pexe Sonko la moom Bougane Gueye moo ko waxal boppam ca turbine yéen a kaay fa wax ne yow Sonko fa ngaa bëgg a jëfandikoo police ak ak yoon ngir régler problème mu politique su fekkee ne fa maa bëgg a éliminer bëgg nga xam ne faw nga am njàmbaar te faaw sa loxoy taq faa bëgg nga xam ne man Bougane Gueye maa la gën a jàmbaar Sonko fañ maa xoolu waaye man du ma xool ndaw na leen génn leen te faayo dem wuy ji fa caa yokk moom Bougane Gueye Dany ca point acti ne faay tuumal Sonko ne moom fa bëgg a saboter candidature Barthélémy Dias a opinion kenn wartu cee jàpp ni di ko tëj kaso loolu fañ ko war a génnee ci suñ code pénal bi nga xam ne ci charte réew mi la nekk démocratie dëgg nit ña fa ñu wax seen xalaat source ana alintin kay fa mer ba fut juróom-benn doomu aadama fañ la na convoqué ci nguur gu bees gi nga xam juróom-benn weer rek la fi amagum ay ñoom baa jaxateeg imam ndaw ak Suzanne Camara tey ña nga xoolu bugaan ak Cheikh Yérim ak Jige Jóob bés bi yéen bëgg néewal doole seen adversaire yi libération na Cheikh Yérim Seck nag moom la waxoon ca 7TV moom la ko enquêteur di doon laaj wekkiwut ca wirgil nag fa dëggal ay kàddoom wal fajir yéen a kaay ne woolu bi ci wàllu yoon fi mu toll fa takarnaase te ay dëli opinion moo tax moo tax yéen a kaay bi na yëf yaa ngay diltu ginnaaw bugaan na ko man de xam naa ne éliminer du yomb de vox populi na a na teg loxo kaay na dox bu baax presse gi kay fa ñu mooy candidat yi war a bokk ci wati député yi ñeen fukk a e ña ngay xool yi baax ak yi baaxut kon mën naa wàññeeku enquête yéen a kaay na ak lu mu ci mënti doon faa leen di wax leen xaalis bu bëri lañ ci nar a dugal ci wote yi ndax bulletin yi rek ay milliards yu bari lañ ci war a dugal ci defar bi yoor yoor yéen kaay na mbootaayi soxna yi nag fa ñoo sàkku ñu amal parité ci liste député yi far force fu ñu bindee góor toftal ca jigéen fu ñu jiitalee góor toftal ca jigéen l'observateur ne Macky Macky Sall nekk bi mu nekk tête de liste ci wote député yii hee ndama ngi ci gàccee ngi ci yow seetal ah wote njiitum réew yi paase Macky faam candidat terewut Sonko ak Jomaay mbuqi ko ba mu tëdd léegi moom Macky bu nekkee candidat ba pare ñëwut battre campagne loolu mooy ne Sonko fa leen di mbuqi ñu tëdd boobaa échec lay doon yoor yoor mel ni ku daan ko Macky Sall mu ñëw Sénégal def campagne ak mu ñàkk ñëw Sénégal moo yem gis ngeen wote député yii Sonko fay mbuqi gaay bañ tëdd ci suuf député yu gën a bëri Pastef ñoo koy gañe yoor yoor yéen xam ne seen xam-xam fa màcc ci wàllu la ñuy woteel te fa ca sonko a kaay na ko faa la ci yokkal ñoom fa ñoo jël dogal ngir jàppale pastef ci wote député yi di ñëw leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne jëwriñ ju ñu dénk kopparu réew mi Diba fa xandi ay leeral ci coowal xaalis bu bëri bi ñu wax ne Macky ak ñi mu àndaloon moom leen pasar pasare alalu askan wi point acti yéen a kaay nee na Cheikh Diba kay démb bi bi njëriñ taskati xibaar yi fa wax ne rapport bi bëri na ay mbir yu doy waar yu caab vox populi ne moom Cheikh Diba fa dalal xelu partenaire technique ak finance yu Sénégal ne ñoom fa ñoo fas yéen a amal doxalin bu jaar yoon bu jub bu ñàkk caaxaan lépp ci alalu askan wi si du quotidien ne Cheikh Diba kay fa dëggal li Sonko waxoon rek ay insuffisance moom lañ nommee ko ci yëf yi nee na ba tey yéen a kaay bi fa xëy di dund guy yokk di fararali ci xanam gu jéggi dayo info yéen a kaay ne secteur privé bu Sénégal CNP ak CNES fa ñoo joxante loxo ci wàllu jëflante yéen a kaay ñaari yi nag fa rafetlu waxtaan wi dox seen diggante ak MEDES te fa ñoo a yaatal yëf yi ci yeneen pàcc yu nekk ci secteur privé bi le soleil yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne li fi waa PIT yi waxoon jëm ci état bi nga xam ne fa bëgg wàññi salaire u liggéeykatu bi li ni mel gouvernement bi fa ko weddi ba tëdd ci naa daan daraa ci xamul ay waxu caaxaan-caaxaan la la mu ñu wax moom libération mooy mbir yu garaaw looxóor yu am ci contrat a kaay le a fi mu toll fa débordé saaraar jëm ci askan wa ba tax yéene kaay bi na ñoom fi mu toll nii askan wa mënatuñoo dem fenn ndax ndox ma fa dagg yoon ya seen wàllug wér-gi-yaram wàllug dund fa gàllu góose fa ñoo nekk ci ay jafe-jafe